recours ak benn l'observateur nee nañu moom la ministère de l'intérieur becc ci taabali cour suprême ubbil yéenekaay bi parti politique yi coalition de parti seen liste candidature yi ñu déposé woon am ca yooyu préfet yeeg sous-préfet yi dañu leen rejeté woon ñu demoon joytu ko ci cour d'appel yi cour d'appel yi am yu bari yu mu ci validé waat préfet yeeg sous-préfet yi ne duñu ko dégg l'observateur nee nañu coow loolee teere ji na ca Ndar benn ca li ministère intérieur bëgg moo di cour suprême arbitré giitoo gi am ci diggante borom liste yooyee ak préfet yeeg sous préfet yi leen invalidé suur soit nañu ñoo ñu buggaan géy di waa gëm sa bopp ca ndar li tax ba cour d'appelub dëkk ba rejeté waat seenub liste moo di seen mandataire ba moo defu recours bi càpp bi ko yoon may ñetti fan la amoon ngir defub recours sud du côté nañu ak ni ñu gisee yëfi li muy wund moo di élection locale national bari ñu fare ci kujug politique yi ñu jàpp ne moo war a mujjee wax ci élection ndax seenub mandat jeex na ci démbi daaw yi vox populi xëy ab jàngat bu mu jëmee ci anam yi ñuy fale nit ñi ci élection locale yi mu di ak raw gàddu journal bi gis ci ndëgg sërëx di pièces yu ci am muy ci ki bëgg a falu di ci ki war a fale yéenekaay bi teg ci teg kaa bi di ci kaa ak i kàngam mu di Moundiaye Cissé ONC 3D bokk ci société civile gi ak Ababacar Fall di expert électoral élection locale yi enquête yéenekaay nee nañu ca mairie bu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr mi waa Benno Bokk Yaakaar samp ak Barthélémy mi candidat askan wi daanaka ñoom ñaar rek la ñu ciy dégg waaye am na keneen ku nekk ci seen kaw mu di Doudou Wade candidat bu coalition Wallu Sénégal ki jiite coalition Wallu Sénégal di Abdoulaye Wade enquête mi ngi ñuy xamal ne ñoo ngi koy séntu ci réew mi fii ki fan ngir mu ñëw jàpp ci campagne yu jarbaatam bi di Doudou Wade waa Wallu Sénégal seen tête de liste ba ca Ndar di Mayoro moo nekk ci xët mu njëkku l'info nee na alternance la ñu soxla ca Ndar te muy Mansour Faye ma fa nekk di Mary Teuw Niane ma fa bëgg nekk ndii xëy ndax ñoom ñaar kiif kiif waa Ndar ñoo war a jóg jël seeni responsabilité xamal leen carrément ne doy na sëkk lancement la ñu bëgg dañoo sonné ci waxi kese yi waxi mi Sénégal 2020 Ndeye Fatima mi doon wax ne dañu ko violé ba ëmbal ko l'observateur ne nañu coow la far na mujj ci guerre de plainte Aminata Badiane mi jiite comité d'organisation bu mi Sénégal porté na plainte Mariama Kébé di Mamiko porté plainte Kader Gadji ba porté wàlle plainte ñeneen ngir ragub deram ci jamono joojee yéenekaay bi di l'observateur mi ngi ñuy wax ne am nay organisation féminine yu nekk ci réew mi yu jóg ñoom mi Sénégal ba noppi taxaw ci wetu Mamiko kay nañu moom kay mbir yi jamono di ndaw sii di Alberta Diatta newoon Miss Sénégal 2019 moom it aw turam ñoo ngi koy jaabaa jonge ci réew mi di ko ŋawta ŋawtee ci wax ji te ba léegi kenn déggul mu wax ci journaliste yu suur soi nañu jéem nañoo ak moom waaye yëf yu antuwul muy moom di Fatima Dione mi waral mbaboor mi ñu booru ba ci journal Libération xooli xibaar bu yéeme ba fa nekk mu di mafia gu rëy gu am ci pièces détachées yu oto yi ay saa saay-saay ñooy sàcc oto jàmbur yi ci Ndakaar yóbbu ko si njër dugal ko ci génn kër tas ko dépiécé ko jaay ko benn waay bu ñu naan Okongo Kelema Tony ñu gën koo xam ci Tony dib jaaykatu pièces détachées bu siiw lool ca défoncé moom la ñu ko daan jaay journal bi nañu ci ñi séq mafia bi jàpp nañu ci ñoom juróom-ñett ci diggante Ndakaaru Malicounda ak Sindia ca yëmbal nord les économies mi ngi ñu fay wax benn waay bu fa doon tëddee ay doomam yu jigéen ngir am pouvoir benn secte bu nekk Nigéria ci la dugg ñoo ko sant ngir mu violer ay doomi boppam yu jigéen ngir mën a am pouvoir lu ko may doom yi dañuy dee sanfona marché Alfé CCPS